baraj baraj gi may def di leen wutal ay xéewal ci dëkk bi ak i saafara baraj baraj googee maa nga teere ji ci dëkk bu sell ba di Touba Mbacke fekk fa Serigne Cheikh borom sungub si nga xam ne daanaka ndomba yam ca boole mucc na ay ayib yow mi nga xam ne yaa ko takk ak foo mën di dugg fu la neex mën nga faa baraj baraju tëmbéetlu ci jàmm ak salaam ngay génne ndax xam-xam ba nga xam ne moom la koy defee moom mi di sëñ bi uh, tedd na lool am na ay ngomb yoo xam ne gars yi boo ne ko ratt moo xam uh, jigéen nga wala góor nga kum ci mën doon uh, boo ko defee li nga koy def yaakaar naa ne la bëgg da ko am ci ki nga xam ne mooy relation góor la wala jigéen ndax bëggante yàlla sunu borom moo ko njëkk bëgg bu fekkentee ni gu leew gi la te yaakaar naa ne loolee bu leew gi rek ko tax a jóg nopp ci jigéen ak ci borom këram nopp googu tamit barkeelu na foofee nga xam ne moo nekk Serigne Cheikh fële ca Touba adresse bi nag ngeen gis ko noonu ma nga nekk Touba Daaru Minam bu ngeen ko wooyee lépp taw féex jaaro yi nga xam ne nag boo ko takkee wërsëg bi comme tullu mel ni comme mbàccum gerte comme ni mu demee ci béjjën bi nga xam ne moom it def na ci ay taw féex yoo xam ne daanaka da cee sonn ci liggéey a soxal nag tukki bi nga xam ne gars yi ay jafe-jafe la ci moom léegi na tukki danga koy dàbbar ñi lu gaaw gaaw euh, carte d'identité nag mooy sungu su sell si nga xam ne day dugg ci àll bi fa lay nekk guddeeg bëccëg ngir jaamu seeni loxo sëñ bi man na te moo ëpp doole gën a féete xale gars yi xaar nag da koo téye ci loxoom maanaam képp koo xam ni bëgg ngaa seetlu boo jokkoo ak moom daanaka lépp dana leer bu asamaan setee wala boog boo bëggee seet en direct sax loolee da ci yëngu